Euh, macha allah documentation bi am na solo. Hmm. ndax nit ki booy wax dangay xam li ngay wax te gis naa ni programme yi topp nga ko mais yaa ngi ci affaire bu garaaw garaaw affaire bu dangereux dangereux <laughs> xam nga xam nga comme dënn parce que xam nga boo xoolee li domine ñi ëpp doole ci monde bi dañoo lëkkaloo tey. laïcité ak franc-maçonnerie ak homosexualité maanaam affaire góor jigéen même nit ñi rek ñoo ko seq daanaka benn la kan moo rédigé déclaration 1789 Gilbert cent de La la franc lan la franc-maçon Jules Ferry lan la franc-maçon laïcité <laughs> donc ñi téye àdduna bi maanaam ñi nga xam ni ñoo téye àdduna bi tey ëpp fi doole ëpp fi alal ñoo ñoo jàpp teg agenda boo xam ni réew yi ëpp doole lañ ko njëkk a ba pare tey bu Obama ñëwee ba Sénégal defaan amul amul choix parce que ni lobby juif amee doole la lobby LGBT amee doole. le premier ministre Canada ñëw ba fii parce que c'est comme ça àdduna bi dafa am ay forces yu ko téye. moo tax yëf yi du mën a yomb ci ñuy jiite Sénégal il faut mu leer leen c'est-à-dire que kilifa diine yépp buñ bindoon ay pétition tey ci àdduna bi il faut nga xam ni tey xaalis rek tey pour nga téye ko xaalis ak fu ñu la mën a aider il faut nga jël engagement ni da ngay respecter droit minorité yi. loolu loolu vraiment clause la boo xam ne xëy na kenn du ko gis mais dafa am loolu mooy réalité bi. léegi nag. cocktail bu explosif la man mos naa bind benn texte ci laïcité homosexualité ak franc-maçonnerie dem ba koy publier ma taxaw. ah bon waaw. ndax dama ragal. noo dooy caaxaan. Hmm? waaw dama lay wax rek. Ah, am na loo ragal ndeke. na lu ma ragal ah am naa waaw am naa lu ma ragal. am naa parce que àdduna noonu la <laughs> xam nga loo gën a mag gën a ragal <laughs> ma amee juróom fukki at bi léegi dama ragal. surtout boo gisee say doom ñuy màgg da xaw a dem daal. mais tu fais 40 ans léegi li ma la bëgg wax daal señ bi mooy dama bëgg rek nga xam gravité combat bi nga nekk. nga xam aussi li nga xam ni moo tënk état au Sénégal parce que dama lay xamal benn affaire. je pense que Macky li mu wax mm, suñu suñu culture il faut ñu jël temps et cetera. Euh, dem na ba au li mu mën a wax parce que wax loolu yombul. bien xam nga ni wax loolu yombul. ah bien sûr c'est très difficile. et puis état Sénégal mën na ko wax mais mënu ko bind. foo nga xam loolu aussi. du ko bind am na lu bari loo xam mën nañ ko wax mais mënuñu ko bind. loolu yëpp nag li ko waral mooy ndóol gi ñu ndóol. c'est important parce que wolof daf ni ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. c'est xamal ma maanaam dañoo ndóol soxla xaalis boo xam ne ñi ko yor dafa am condition ñu ci teg ba pare aussi mu am lobby yoo xam ne aussi tey boo bëggee yor nguur wala nga consolider ko même boo ci bokkul faaw nga seq ak ñoom jàmm faaw nga seq ak ñoom jàmm dama la bëgg wax rek pour nga xam ni ñu ñuy jiite affaire bi dul lu yomb ci ñoom affaire bi dul yomb ci ñoom affaire bu jafe la tey xam nga. boo gisee par exemple pétition yi yëpp ku mel ni sëñ Mountakha signé ku mel ni sëñ Mbaye Mansour signé te gisoo effet immédiat ngay xam ne am na lu ko waral te lii aussi amoon na fi parce que Cheikh al Islam Baye Niass signé woon na Gaynde Fatma signé Maam Abdou Aziz signé code de la famille. bien sûr mais bi franc-maçon yi tegee seen beto code de la famille bi soppeekuwul donc daal àdduna bi moo demee noonu malheureusement moo demee noonu. Euh, combat bi ngeen di xeex nag amul benn jullit boo xam ne nii euh, combat bi ñoru la c'est vrai parce que nag société boo xam ne aussi euh, góor parce que boo xoolee par exemple ay Europe ay Amérique ak yooyu boo xoolee société yooyu daanaka ñu ngi sànku maanaam jigéen ñi tas nañu maanaam jigéen sax ñi jig jëflanteeg jigéen ak góor ñi jëflanteeg góor moo ëpp xam nga ma société yi dem ba nga xam ne daal loo xam ne nii jàppoon nañu feebar la dem na boo hmm. nekk modèle xam nga loolu du du société boo xam ne war nañ ko bëgg waaye nag àdduna moo bindoo noo xam ni hmm. dafa am force yoo xam ni foo mën a jaar composé ak ñoom hmm. moo tax man la combat bu am solo la parce que euh, ci agenda bi sax am na yoo xam ne nii bu ñu weetee naa la ko wax <laughs> parce que la le est-ce xaw ma yaa ngi suivre EPU yi wala déet yaa ngi koy suivre. yaa ngi suivre bu baax. maa ngi koy suivre waaw boo suivre EPU yi ak la fay xew ak lañ fay wax te duñ ko bind da nga xam ne yëf yi mu ngi sori. surtout de duñ ko bind. waaw mi ngi sori loo ci mën a dégg daal question bu doy la question la boo xam ni sénégalais yépp war nañ cee attirer seen attention. ñu bàyyi ci xel. ñu bàyyi ci xel doxaale ni bu ñu bëggee réew mi. Euh, valeurs yi nga xam ne moom la ñu gëm diine ji nga xam ne moom la ñu gëm continuer te mu am bañ a am yenn yàqu-yàqu yi maanaam nit ñi faw ñu xoolaat état bi nag dafa am ay limitam moom sëñ bi parce que nit ko aussi mënoo koo demander lu mu mënul te fi mu toll nii ci question yooyu am na ci état bi lu mu mën ak lu mu mënul. Ah, yéen même buñ leen ko waxul. <laughs> defe naa leer na alors Papis. en fait man dama bëggoon d'abord. encouragé